jëmm yi leen soxla doyewuñu tur dara moo tax ku ne turu yàlla yaa dundee mënoo tur di dundal kenn turu ceeb bu noo ceeree jëmmi ceeb day gis ah moo tax ku gisul jëmmi yàlla doo jariñu waaw jëmmi yàlla <laughs> jëmmi yàlla de moo yàlla ne sëñ Tuubaa xam la gum jublu muy Kaaba <laughs> seerafal ne julli dafa xat boo jullee fee soo feeku ñu ne mu nag mu ne nii ñu ne duñ nangu mu ne nii mu ne kon duñ ko nàmp ñu ne pour mu ne nii rek ñu ne kon duñ ko nàmp mu ne waaw kuy joxe nag ñu ne foo jublu rek mu gis nga ko. deel joxe asraag minal mu'miniina anfusahum wa amwaalahum zaalika lahumul janna moo tax ku nekk dugg àjjana doo joxe wut sa bopp sa alal doo dem àjjana gis nga tabe yàlla da koo fonk tabe ba ñu yéexoon bu tabe sax du dugg safara moo julit bu nay nooy bokk dem la xaraam kon tabe da ngay tabe ci jikko jikko yaa ko wax jikko te xaal la xoo bi xuluxilla la rasulullah daal jikko leen ci jikko yàlla yi moo tax nit wóor te wuuteeg yàlla tax moo ko fi wóotu koo wóotu boo wuuteeg moom yàlla laa fi wóotu lu mu ko mere ñëwuma mu la ko jëgal place bi waaw lii rek moo tax ma neex man moo tax koo xam ne bañ nga benn mbindeef ci kaw suuf ci mbindeef yàlla yi xaw ma àjjana jooy dugg waaye du mi du àjjana yàlla mbindeef laa doo ko mën a nit ah mi ngi moom di yàlla ko bëgg mu bind ko yow nga bañ ko yonti yàlla noonu na ab xaj rek la gis na xaj bi dafa ñaaw xaj bi ne ko ba bindal saa bopp di noonu laay mel muy jooy ñeent fukki fan ab yonent yaa war koo jéggal tudde ko bindkat bi suñ baba ne boo xoolee xaj ba gisee ne la yàgg mu ne xaj baa la gën moo tax xaj bi du mënul noo mais bi daw kan la dal wax daw kan xaj moy ko xajiko ci Allah. Allah. allahu akbar allahu akbar kon baat baagi ni moy mooy nga am fa yalla tuddu baat la ilaha moo tax nga am baat fa yàlla bañ ko tudd moo tax réew mi doo ko baat. dëgg la. laa ilaaha illallaah dafa tudd ko. Cheikh Moussa la laa imaam yàlla yàlla gërëm ndeysaan gis nga ko mbir mi ah gars yi bu ñuy ndëpp kuñ laa sawraf rek nga daaru moo tax ku yëngu fii rek déglu ko fii ku da koy yëngal moo tax moo tax nañuy moyonte sax ci suñ biir parce que li ñuy doxee ni ko buñ ko yëgal dañuy beew buñ ko yëgal yàlla da koo téel boppam moo tax ñun waxuñu waaye dañ ñuy waxee appareil waxum ne borom a ciy wax moo tax la Cheikh Samba Diaye may waxal bu leen ma yéem yéem leen ko moom lu man ki wax mooy ki di wax man waxal laa wul ji wax mune ne buñ mu ubbee rek may làmmiñam ha kon gisé ko li ngay doxe sa tag noonu la yalla doxé yow ni ngay waxa sa làmmiñ yàlla noonu la waxé ni ngay déggee sa noonu la yàlla déggee moo tax fii li ma wax la dëgg ki ko ko fi wéer di dem ba juróom-ñaar yàlla depp la nga ñëwaat mun la weesu nga dëgg ba bi weesu bi ambassadeur bi bi Italie rek dem Italie nga xool danaa la weesu nga dëkk Sénégal la ambassadeur bi awuy kayit kon bu weesu dëkku yàlla gii foo mën a dem yàlla dëpp la nga diir si dana demal dem li dëkk boo ñëwee dootoo déggante gars yi am miiree dox seen diggante duñu leen déggante kon ak nit ku ko am na nga ko téye ak nit ku nite sëñ Bamba nee na nit ku nite mooy ki nga xam ne day dem fekk li yàlla digle bu teg ca tànkam te bañ koo teggi koo koo nite moo tax sëñ Masamba Diop Samb loolu la ko ñaanal ku ne ñaan mu ne ko nit ku nitee laa wax ku ma ko may sëñ Bamba nit ku nitee boo nitee boo doo ca jariñu boo dee xam-xam doo ca jariñu loolu la ba jóg dugg ca biir laa la wax nit ci nite rek kon gaay naa sëñ Tuubaa di nit dañoo wax dëgg sëñ Tuubaa nit la ku nit saa waay it yàlla da nit gër lu nit nga ne loo ko bëgg a def moo tax borom daal boo ko masaa sëñ tubaab bi mu ne déedéet yàmbatul nit waaye sëñ tubaab mooy nit ku tekki ah xalal kullal xoqalaa la wax rasulullah moo gën a xelu boole borom xel yi kay mooy nit te moom mooy rasulullah moom mooy moo tax Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh Abdou Khadir Jeylaani bu tellale boobu ba ca Rasulullah lay la jox nañ ko Cheikh Moussa ku wër Cheikh Ahmed Tidiane boo dikkee ci Cheikh Moussa Cissé mu wër la Cheikh wala leer ga yonent yàlla Muhammad jox na jox na ma yàlla yónni ma ci ku yàlla bind yor naa sa na sa njëriñ xam nga maanaam yow bu fekkee même tijaan nga wala ngay murid wala ngay xaadir gaa yi woo la ci yàlla. nga naan tijaan laa yaakaar wala Serigne Touba Seydou Duxar yi xam mel mu taw ba mun na jiyee nga naan bu doon nawet bi daaw bi da ngaa lépp daal tool rek barke Rasulullahi noonu la demee. mais nit yi démb yi mënu leen defar tey nekkatuñu fii bi gars yi waxtaane ñi weesoon ci kanam suñ tubaab billaay wala dafa génn leen ana yéen ñii ku ci bëgg ñu wàññi màqaamam ba mu toll màqaamam ñooña mooy nekk ci biir suuf waaw ah, yow bëgg ko nga toog fii moo tax ñu bari buñ dikkee seen di weddi li may wax dama naa leen man waxee ko faatu kenn du ci yéen di samay wax sa xam-xam nga yéen ni bëri sama wos maase wuñu maa kooku wéranteelu ma ko weddiwu ma ko xamuma ko yàlla laa xam mais ngeen di seeni wax ñoom nekkuñu fi nga bëgg ci weddi samay wax te yow nga nekk yow indi sa xam-xam rek kon ñi jàng ci téere yi amuñu xam-xam xam-xamu jàmbur la ñu yor xam-xam a jëkk téere xam-xam ci nit la jógee dem ci téere wala xam-xam jóge ci téere dem ci nit balaa kenn bi téere da nga am xam-xam loola waykat bi ne sunu xam-xam bi picc la moo xam ne buñ ko rëbbee ba jàpp ko nee na bind mooy bu buñ ko yeewee ma ne kon fu ñuy rëbbi xam-xam xam-xam yàllaa koy xamal nit dégg naa fi jànkali naan ba yonent bi demee ba tey ku ne yàlla déy na ma waxoo dëgg ma leen yonent bi demul di daa def yonent bi liñ ko yónni woon demut moo tax yonente yi ñu baax lañ waaye ñiin yàlla yónnee bonuñu ñi tax yàlla yónnee ñoon duñ dara yónni nga ndaw ndaw li màgg na waaye bàyyi diw ñu ngi ko yónni màgg na de moo tax loo defub julit ñaari mel ni ku ko def rasulullahi ab julit loo ko yaa ngi mel ni ku ko wax rasulullahi itam julit xaqan nag laa wax loo ko defal rek rasulullahi nga ko defal kon julit bu bir kon sang dum tin li muy woote ndar loolooy dëgg tey boo léegee moo doon dëgg démb moo doon dëgg buñ jëlee sa gàj goj ko jaxalama moo doon dëgg ku ko nee doon safara te ku weesu fii pérete fii nga bëgg kasante weesu ko fi ñëpp taxaw doo am mais bu weesu lii lekkate boo demee pare mu libre mu mboolaatal moo demee bi ñu yeesu jàkka jëm ci jàkka ku weesu sàng jëm ci sàng naa feq nga fii ku fi bëgg a leeral Cheikh Dioum Tullu ngi nii projecteur la mooy leeral fii yëpp waaw kon na ci jaam ñi leerlu yàlla seen bopp lañ koy defal al haqqu min rabbikum fa man saa fal yu'min fa man saa fal yakfur dëgg daa yi ku bàyyi ko ci yàlla ku neex gëm ku neex weddil suñ yoon nekku ci moo tax tubaab dafa leen wax naan ku bàyyiwut doomi suñ tubaab du bàyyi kenn waaye du doomi suñ tubaab bàyyi bu ko kenn baax ginnaaw yow suñu bilaa lañ xas ay leetar dugal ko këram ba mu dib saako mu génne ko naan lii kenn mi waru ko wax ko dëkkal balaa jullit ñeew ah sëñ seen yu toog fi naan sama seen mooy yàlla gi day metti saa yaram bi te ba tey yaram dawut sëñ Mourtala ne Touba di neexatul jaamu yàlla ndax sëñ yi jooy yi da cee bari ah jë na nga ne ceer rek ba tey duñ yëngu de hmm? mu ne bu ma sañoon daal di jiital topp ci yéen waaye bu gis itam naa taxaw xaar yéen bu ma gis dépp cinq si yéen ndeysaan mu fekkee ngeen tamit damay topp ci yéen gis nga xam nga yow sàmm koo xam ne ab juróom mi ngi ko réer ci tool yi mu xool xool jiitalu leen ñu ngi ci ginnaawam mu def fekk ñu yaat ci tool yi du wàññi ji mu leen bari waaw kon nag gis nga ko noonu màgg na waaw yàlla yàlla màggal ñu waxtaan wi moom lu ci jub suñu borom lu ci dëng nag ñoo koy jégal màgg doomu aadama maa ngi ñaan saa borom kenn koo xam ne ñëw nga fi boo delloo yàlla nga di am Cheikh Moussa ay Cheikh Moussa yu bari daj dewati na bi ci leer laa ilaha illallah si adoom sin yàlla yàlla dëggal ko wéral ay cëram doon leen yàlla ne mag ñoom itam daa koy tànn ci barke laa ilaha illallah moom sallallahu alayhi wa sallam